gannaaw ba ñu jógee ci coowal dette fiscale yi lee nga xam ne boobu ba léegi presse bi ñu ngi ci jàppal bàyyi yéegal wàcc bile yoon beneen coow li daal di daanuwaat ci kaw presse bi di contra de partenariat yi nga xam ne presse bi amoon na ko yenn direction ak yenn ministère jamono ji ñu ci bari ñu ngi commencé di retirer seeni contrat ak yenn ci ay télé tax mu juraat ab débat ak polémique ba ñu ci bari fi mu toll nii di ci àddu tax ba ci ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllum presse bile di xamle ni tey loolu ñu bëgg a doxal dina daal di indi yeneeni problème ci biir entreprise de presse yi lee ndax bu dee ci contrat yi ci la ñu daal di fay ci seen yi wala ci la ñuy daal di am matériel yi nga xam ne ci la ñuy liggéeyee tey jilee bis buñ ko dindiwee mën na jur leneen lu dul fi mu toll nii li dette fiscale yi la jox taax ñu daal di ci interpeller ñenn ci ay patron de presse ku ci mel ni Bour Guédé moom di njiital Bour xam xamle ni moom contrat ba nga xam ne amoon na ko ak Lonase ci ñeenti weer rek la daal di durer ndax ki nga xam ni moo nekkoon njiital Lonase ca jamono yooyu di la Diop dafa jàppoon ni moom dafa bokk ci parti bi di Pastef ba tax mu bëggoon ko di dugal ci ay détails ci noonu moom njiital Bour News dal di xam ni gannaaw événement yu juin 2023 yi ci lañ ko daal di woo daal di retirer contrat bi muy leeralaat itam ne contrat ba mu amoon ci 6 millions donc la tolon waye du 20 millions te yitam musuñu ko ci jox 100 francs kon lepp lu ñuy wax rek di ko ci mom na doon lu leer ndax mom amul benn yoon dossier bo xam ne daal dina ci signé contrat ak direction bi di lonal waaye itam du moom rekk ndax yeneen i site lim nañ leen ci ñu ci mel ni Public SN bu Aïssatou Diop Fall ki nga xam ne moo di Mame Gor Diazaka waaye snapper boobu lee di ñaa xarañ loo itam daal nañ ko ci lim lim nañ ba lim groupe bi di Leral TV lim itam ki di ma Madiambal Diagne waaye itam lim nañ njiital nouvelle télévision sénégalaise moom Diaw Fall ñu daal di leen di lim ci list boobu lee nga xam ne ci direction bu LONASE la jógee ci ay convention yoo xam ne dañ leen ko doon jox. ba tey ci kàddu yi tam tax ñu daal di dégg suñu micro ñi nga xam ni ñooy liggéey ci organe de presse yi ñoom itam daal di nañ ci àddu daal di ciy leeral lu bari di xam ne ni nguur gi lépp lu jëm ci dette fiscale yoon la patron de presse yi daal di koy fay ndax ab impôt la waaye lépp loo xam ne daf di contrat de partenariat ak direction yi. bis buñ ko retiré rek te leeraluñ ko. mën na jur yeneen jafe-jafe ci biir këru liggéeyukaay yile gannaaw ba ñu jógee ci coowal dette fiscale yii le nga xam ne boobu ba léegi presse bi ñu ngi ci jàppal bàyyi yéegal wàcc bile yoon beneen coow li daal di daanuwaat ci kaw presse bi di contrat de partenariat yi nga xam ne press bi amoon na ko yenn direction ak yenn ministère jamono ji ñu ci bari ñu ngi commencé di retirer seeni contrat ak yenn ci ay télé tax mu juraat ab débat ak polémique ba ñu ci bari fi mu toll ni di ci àddu taax ba ci ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllum presse bile di xamle ni tey loolu ñu bëgg a doxal dina daal di indi yeneeni problème ci biir entreprise de presse yi lee ndax bu dee ci contrat yi ci lañu daal di fay ci seen yi wala ci la ñuy daal di am matériel yi nga xam ne ci la ñuy liggéeyee tey jilee bis buñ ko dindiwee mën na jur leneen euh, lu dul euh, fi mu toll nii li dette yi la jox tax ñu daal di ci interpellé ñenn ci ay patron de presse ku ci mel ni Bour Guédé moom di njiital Bour News xam le moom contrat ba nga xam ne amoon na ko ak Lonase ci ñeenti weer rek la daal di duré ndax ki nga xam ni moo nekkoon jital Lonase ca jamono yooyu di la Diop dafa jàppoon ni moom dafa bokk ci parti bi di Pastef ba tax mu bëggoon ko di dugal ci ay détails ci noonu moom jiital Bour News daal di xam ne ni gannaaw événement yu juin 2023 yi ci lañ ko daal di woo daldi di retirer contrat bi muy leeralaat itam ne contrat ba mu amoon ci 6 million donc la tolloon waaye du 20 millions te itam mësuñu ko ci jox cent francs kon lépp lu ñuy wax rekk di ko jëmale ci moom na doon lu leer ndax moom amul benn yoon dossier boo xam ne daal dina ci signé contrat ak direction bii di Lonase waaye itam du moom rekk ndax yeneen i site lim nañ leen ci ñu ci mel ni Public SN bu Aïssatou Diop Fall ki nga xam ne moo di Mame Gor Diazaka waaye snapper boobu lee di ñaaxarañ loo itam daal nañ ko ci lim lim nañ ba lim groupe bi di leeral TV lim itam kii di Madiambal Diagne waaye itam lim nañ njiital nouvelle télévision sénégalaise moom Diaw Fall ñu daal di leen di lim ci list boobu leen nga xam ne ci direction bu LONASE la jóge ci ay convention yoo xam ne dañ leen ko doon jox. ba tey ci kàddu yi tam tax ñu daal di dégg suñu micro ñi nga xam ni ñooy liggéey ci organe de presse yi ñoom itam daal di nañ ci àddu daal di ciy leeral lu bari di xam ne ni nguur gi lépp lu jëm ci dette fiscale yoon la patron de presse yi daal di koy fay ndax ab impôt la waaye lépp loo xam ne daf di contrat de partenariat ak direction yi bis buñ ko retiré rek te leeraluñ ko mën na jur yeneen jafe-jafe ci biir këru liggéeyukaay yilee gannaaw ba ñu jógee ci coowal dette yi yilee nga xam ne boobu ba léegi presse bi ñu ngi ci jàppal bàyyi yéegal wàcc bile yoon beneen coow li daadi di daanuwaat ci kaw presse bi di contrat de partenariat yi nga xam ne presse bi amoon na ko ak yenn direction ak yenn ministère jamono ji ñu ci bari ñu ngi commencé di retirer seeni contrat ak yenn ci ay télé tax mu juraat ab débat ak polémique ba ñu ci bari fi mu toll nii di ci àddu tax ba ci ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllum presse bi lee di xamle ni tey loolu ñu bëgg a doxal dina daal di indi yeneeni problème ci biir entreprise de presse yi lee ndax bu dee ci contrat yi ci lañu daal di fay ci seen yi wala ci la ñuy daal di am matériel yi nga xam ne ci la ñuy liggéeyee tey jilee bis buñ ko dindiwee mën na jur leneen euh, lu dul euh, fi mu toll nii li dette fiscale yi la jox tax ñu daal di ci interpellé ñenn ci ay patron de presse ku ci mel ni Bour Guédé moom di njiital Bour News xam xamle ni moom contrat ba nga xam ne amoon na ko ak Lonase ci ñeenti weer rek la daal di duré ndax ki nga xam ni moo nekkoon jiital Lonase ca jamono yooyu di la Diop dafa jàppoon ni moom dafa bokk ci parti bi di Pastef ba tax mu bëggoon ko di dugal ci ay détails ci noonu moom jiital Bour News daal di xam ne ni gannaaw événement yu juin 2023 yi ci lañ ko daal di woo daal di retiré contrat bi muy leeral leeralaat itam ne contrat ba mu amoon ci 6 millions donc la tolone waye du 20 millions te yitam musuñu ko ci jox 100 francs kon lepp lu ñuy wax rek diko ko ci mom na doon lu leer ndax mom amul benn yoon dossier bo xamné dal dina ci signer contrat ak direction bi de LONASE waaye itam du moom rek ndax yeneen i site lim nañ leen ci ñu ci mel ni Publication bu Aïssatou Diop Fall ki nga xam ne moo di Mame Gor Diazaka waaye snapper boobulee di ñaa xarañ loo itam daal nañ ko ci lim lim nañ ba lim groupe bi di Leral TV lim itam ki di ma jàmbal Diagne waaye itam lim nañ njiital nouvelle télévision sénégalaise moom Ndiaw Fall ñu daal di leen di lim ci liste boobu le nga xam ne ci direction bu LONASE la jóge ci ay convention yoo xam ne dañ leen ko doon jox. ba tey ci kàddu yi tam tax ñu daal di dégg suñu micro ñi nga xam ni ñooy liggéey ci organe de presse yi ñoom itam daal di nañ ci àddu daal di ci leeral lu bari di xam ne ni nguur gi lépp lu jëm ci dette fiscale yoon la patron de presse yi daal di koy fay ndax ab impôt la waaye lépp loo xam ne daf di contrat de partenariat ak direction yi bis buñ ko retiré rek te leeraluñ ko mën na jur yeneen jafe-jafe ci biir këru liggéeyukaay yile